asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Hmm? dañuy sant. xanaa ah, ñuy sant rek bu baax a baax. ak moom na fi. <coughs> ngi fàttaliku waa jooju. ñu hmm. hébergé woon benn kër. te mu yeboon maire bi ne ko dama lay yóbbu ñu signé loo xam ne dafay tax. banque lebal nu xaalis ñu réfectionné kër gi te waa ji xëy suba rek. ne leen kër gi maa ko maa ko jaay kër gi ñoom maa ko ko baax yàgg na léegi mu mat yàgg na torop. tës mhm. bi jàll na ndekete waa ji bàyyiwul. mu ngi ci laajum kër gi ba léegi. nee na kër gi moom moo ko moom. ci la ko réfectionné rek. dafa lem lebi banque lebi banque réfectionné def far ay magasin waaw loolu yàgg na. 2005 ba tey magasin yaa ngi dox mu ngi fay banque xanaa bor loolu lépp lépp. war naa mën a jeex nag léegi war na jeex. Hmm. kooku ne yemul ci di fay bor ba dafa ni leen kër gi moo ko moom. looloo ma jaaxal te yemul ci loolu de fi mu toll nii tey jii nii nee leen police daf leen convoqué. tey tey parce que dañu leen forcé jox leen këyit goo xam ne dañ ne leen nan génn kër gi. ah maire bi jëkkëram moomoon kër gi ak ay doomam. ah. tey tey ah, tey tey loolu loolu loolu góos na de loolu doy na waar loolu góos na de. xam nga am na ñoo xam dañ lay ah, nax doo xam fu ñu lay jaar. Ah. Hmm. xam na waaw mel ba moom it baa siiwul dara loo xam ni. moom laa lay wax wala bu xaatim loo xam ni day wan ni. seen jëkkër sede na kër gi. Mhm. dañ ko wóolu woon bi ñu waree teggi seen i doomu baay moo leen lebal xaalis ñu teggi seen i doomu baay. mu xëy suba ni leen kër gi dafa màgget comme yéen a ko moomal seen bopp ci ñoom ci li ñu wax nag laa wax ci li ñu wax. Mhm, ci li ñu wax ñëw leen ñu ànd ñu signé ay këyit banque pour ñu lebal ñu xaalis ñu defar kër gi. Hmm. ndekete ñoom ci huissier la leen yóbbu. Hmm. xam nga 2005 ñoo xam ne xale lañ. peut-être xamuñu mën nañ signé ñoom ñëpp ñu signé. Hmm. day jël engagement huissier boobu nag man li ma bëgg laaj mooy ndax huissier am na droit signé loo nit te leeralul nit ki ñu signé ba pare. man loolu bëgg naa bu baax ñu leeralal parce que booba abus de confiance lay ne. vraiment bëgg naa xam huissier bi ko signélu ak ndax huissier am na sañ-sañ boobu. abus de confiance dafay daal di ñëw bi daa toll foo xam ne balaa balaa ngaa signé dara na ko càmbar xool ko. mais ja wóorul dëkk bi wóorul 2005 li nga wax solo de est-ce que huissier bi ñu toogee nee na leen lii ngeen yi signé. lii ak lii ak lii la te bés boo leen ko signé. mooy jël ngeen lii jox ngeen ko diw. xam mbir balaa nga ko signé sax bu fekkee mënoo li danaan la. yóbbu ko ànd ngaa ko mën a lire. waaw. wala nga yóbbu koy ay fan ñu lii ku la ko comme li man toog 2005 ak léegi moom daa xaw jëli fan hmm. moo tax wax dëgg yàlla mbir nga ci te bi la tàkk moom la tàkk ah, te doom ji dafa ànd ci loolu maa ngi koy fàttaliku bés doom ji yow sagaloo sa ndey chimère chimère ayca ñu déglu ko ñëw ñëwoon fii tës. waa ñëwoon naa fi kay presque léegi mu def presque ay huit mois wala neuf mois. ok presque def na daal un an ci gàttal. waa def na un an waaw ci gàttal waaw. mën nga ma fàttali maanaam euh, lan moo nekkoon problème bi la fi indi woon. waaw fi indi woon c'était mon beau-frère bi nga xam ne moom dafa accusé woon ni sama yaay daf ko jaay sama kër baay ñu yóbboon ko wàllu yoon moo taxoon ma ñëwoon ci wàllu tës parce que moom ko jàll di tës wax dëgg yàlla gisoon naa si avancement moo taxoon ma ñëwaat pour dellu si waat uniquement pour que si gën a mën a dimbali ba lii jàll ba xam ne ministre de la justice dina ko jot pour teg waa ji si yoon. Euh, dinañ ci ñëw li tax nga tiit ba ñëwaat ci rajo bi mais ci fàttali rek yéen da ngeen a nekkoon ci ay procédure est-ce que mën nga ñëw ci procédure yooyu nga xamante ne moom ngeen nekkoon. waaw dañoo nekkoon ci procédure parce que le gars dañ ko yóbboon au niveau de tribunal pour mu delloo ñu suñu kër baay moom. kër gi mais moom def ko dafa saisir benn juge référé ba mu saisir juge référé bi daf ko topp pour uniquement pour génnee ñun suñu kër waay léegi juge boobu moom ay dossier parce que d'après sama avocat li ñuy wax parce que dinañ carrément ay ay kayit la ko jox xam ne moom kër gi si turam la nekk juge référé bi si loolu lay mën a te juge bi nga xam ne moo yor wàllu civil àttegul juge bi nga xam ne moo yor au niveau de parquet aussi euh, pénal bi àttegul léegi juge référé bi moom dafa ne comme kër gi si turam la nekk seen waa kër dañoo war génn moo jox moo tax mu ne moo tax mu jox ko nekk moom sama yaay yi xam ne ñoo nekk ci kër gi Sénégal Parcelles Assainies moo tax tey jii fu mu nekk nii soo xoolee boobu léegi ñu siy toog mais à chaque fois waa ji sama ñoo yaay ci kër gi te moom amul ndam ci kër gi parce que juge bi joxagul verdict d'accord dafa saisir juge référé te moom te moom maanaam affaire bi nekkatul sax euh, civil mais dafa dem dem pénal. affaire mi ngi sax joxagul verdict mais moom il a saisi un juge référé uniquement pour génne ñu te pénal mi ngi def enquête am pénal fa mu nekk nii mi ngi def liggéeyam convoqué nañ sama yaay ba enquête ko moom convoqué convoqué nañ ko parce que d'après li ma avocat yi wax le gars actuellement il est incubé moom si jëm boppam si jëm boppam convoqué nañ ba enquête ko yoon mi ngi def liggéeyam mais moom li mu fal sama yaay génnee ko ci kër gi su sama yaay sax wallaay su pénal àttee moom da koy génne parce kër ga moomu ko parce que moom def ay délit la te mi ngi àtte te gëm naa man li may wax rek j'ai confiance sama justice soo gisee ma koy jaarale dafa am benn rime bu dafa am koo xam message mu jàll mais moo tax ma ne naa dellu si waat tës ngir dimbali ma ngir jëmm rasulilaay affaire bi jàllaat tës sama seur moom si jëm boppam complicité la ak jëkkëram parce que soo demee ba ñuy nangu ñuy génnee sa ndey si kër goo xam ne sa baay moo ko tabax bàyyi ko woon fii Sénégal sa jëkkër ñëw dëkkoon intervention luy fa daan fay chaque mois cent soixante dix huit mille francs tey jii ngeen ñëw dëkk suñu kër baay am quatre magasin sa jëkkër di fay ko chaque mois suñu kër baay moom mu carrément kër gi moom moo nag mu yóbbu ko yoon pour yoon suñu kër baay d'accord noonu ngi def liggéeyam d'accord dana àtte d'accord grand ci fàttali maanaam euh, kër gi euh, magasin yi nga xamante ne nii maanaam moom la doon loué di ko fayeeku bi ngeen saisiré euh, bi ngeen saisiré justice dañoo arrêté location bi location yi ba léegi arrêté wu ñu ko parce que topp naa avocat bi nee naa ko location yi dañ ko war a arrêté parce que waa ji amatul droit jël benn location si kër gi parce que waa ji actuellement soo xoolee en deux mille cinq ba deux mille vingt trois moom moo mos a jël location kër gi ñu mosuñu see laal ñaar dërëm parce que day fay banque am na benn bis boo xam ne waxoon naa ne ko si tës bu njëkk ba banque dafa naroon saisir kër gi man maa woo sama benn xarit bu jigéen mu lebal ma cinq cent mille ma jox ko pour waa ji comme fay banque pour banque bañ a saisir kër gi parce transfert banque te banque chaque mois xam lu muy fay cent quarante cinq mille kër gi am na quatre magasin magasin bu si nekk rek lu mu gën a gàtt soixante quinze mille lay fay mi ngi nekk Parcelles Assainies unité quatorze te këru angle la defuma ko nag pour question ay question héritage parce que dafa am loo xam dafa ñaaw parce que su fekkee da nga engagé da ngay dimbali ay jirim dem ba ci biir nekkate yow nekkul ndimbal da nga bëgg jël paaka teg ko dëkk parce que mosul fay location parce que fu mu dëkkoon intermédiaire da daan fay chaque mois cent quatre vingt quelques mille la doon fay soo xoolee fu mu dëkk suñu kër nii mosul joxe ñaar dërëm dépense kër bi ñun ñoo ko daan bokk man dama liggéey sama mag bu jigéen sama mag bu góor liggéey sama mag bu jigéen danaan jaay sama yaay danaan jaay ci àdduna su fekkee àdduna daf kaa jaral muy di wax loo xam ne dara du si dëgg uniquement pour toroxal yaayam wallahi balaa dee dina ko gis parce que sama yaay mérité wul lii def moom day jaay une grande dame te wallahi warxaanu kay moo jëkkëram ñoo yem ay sàcc d' accord d' léegi léegi grand yéen maanaam da ngeen a waxoon ne jaayu leen ko kër gi mais moom biñ ko convoqué yóbbu na ay këyit yoo xamante ne nii euh, këyitu kër goo xamante ne turam moo ci nekk est ce que loolu mën nga ko leeral. waa kay loolu mën naa ko leeral parce que moom ñëw ne sama yaay dama bëgg leb banque pour tabax kër gi dëkk fa en attendant tout tard damay dem mais pour banque lebal ma xaalis ba leen ngeen signal ma ay document sama yaay wax ak ñun ñu dem siñul ko ay document ñun fañ ko yóbbu pour ñu signal ko ay document nekkate ñun si notaire la ñu yóbbu en 2005 man en 2005 à mon niveau étude sama sœur même soo sama yaay jàngut ñun ñoo yóbbu ñu yegg si am na njaay ñu ne maa ngi nii ñu ne ma signal ku nekk ñu lim sa tur ñu ne la signal ñun loolu lañ sa am ba ay témoin témoin yi nga xam ne ñu ngi si acte de banque bi ñëpp si bokk yëpp signal wax amul xaalis bu ñu fa joxe amul ñàddër bu ñu fa beese te notaire su fekkee noteer mooy jaay notaire ngay bees sa xaalis notaire jël xaalis vers sa famille loolu lañ xam si jaayu notaire su fekkee tamit yow da nga jënd si en tant que famille famille su fekkee da ngay jox xaalis xanaa yow ki nga jox xaalis dina am mais musuñu wala di nga ko woo ne eh man di dama bëgg seen kër baay mais moom loolu mus si am musul ñëw wax ak ñun waxu jënd musul ñun wax waxu jaay moom daal ñëw na gis ñu nekk si benn problème te problème mooy suñu doom bàyyi la war waroon jukkil xaalis te man maa ngeeg ay audio moom muy wax mu amee seen doom bàyyi ngeen waroon jukkil xaalis man maa yëkkati xaalis jox seen yaay pour seen yaay jox famille bi libéré leen moom su fekkee moom moo moo moom moo wax loolu ci ay audio kay moom lan la mën a ëpp ci ko waatee moom ñun ñu jaay ko kër gi te te waxuñu dara te ñun ñee ñoo ko jaay kër gi parce que sama yaay jukki na sama doom bàyyi féete woon nañ loolu lañ sekk ak ñoom ki lañ sekkaloon ak moom jox lañ seen xaalis jeex na léegi nag moom si la pare ñëw proposé ñu pour def banque pour tabax kër gi parce que jamono jooju en 2005 kër gi dafa am ba ca nekkoon moo ca nekkaat ba léegi parce que changé wu dañoo defaraat foog toj ko moom mu def éegal ci kaw bu ne nee naa la magasin quatre magasin fa nekk magasin bu nekk mën na fay soixante quinze mille man bu may jógee Sénégal c'était en 2016 magasin bi fa bàyyoon kaaj yëpp luy woon chaque mois moom mooy fay banque moment bi nga xam ne fayul banque mooy moment bi nga xam ne dafa feebaroo tëdd kër ga te man la woo ci néeg ba sax di may baalu àq du ma ko fàtte mukk dafa woo ba ma ñëw mu ne jaay baal ma àq ma may baalu xaw ma lu xew mu may baalu àq mu ne mais problème mooy actuellement damay def opération sama tànk bi dafa problème dama war a dindi seer yi sama mag bu jigéen moo teggi natt jox ko billaahi wallahi wa taalaa ku dee ak sa bàmmeel sama mag bu jigéen sama taaw yaay moo teggi nattam jox ko pour mu faji tànkam mais tey moom amul lenn ñuy fayee woo ko pour mu delloo ñu suñu kër wala moom si wàllu yoon mais def fa saisir ay juge référé pour juge référé bi nga xam ne mooy wàllu pénal pareegul àtte juge bi nga xam ne mooy wàllu civil la cinq bi passé la waroon àtte parce que aji dossier yi trois fois d' accord léegi léegi léegi grande yow wax nga ma ne ma sànq maanaam moom bu fekkee ne dañ ko inculpé maanaam yéen wax nañ leen ne ah. buñ ko inculpé ci dossier bi moom warul wax lu dem ci loolu te yoon àtteegul loolu est ce que buñ ko waxee seen avocat yi wala wax nga ko ndax wax nga ko seen avocat ak ba nga leen ko waxee lan lañ la tontu ñu ne carrément soo xoolee actuellement pourquoi procédure waa ji jàll parce que waa ji bañ ko yóbbee au niveau du tribunal pour ñu jëlloo ñu suñu kër moom kut koo kut toppul dossier yooyu parce que ay conseillers ñu ko jox la dafa saisir benn juge référé pour kut koo kut génnee ñu pour xokkatal xam nga loolu mooy xokkatal parce que avocat yi loolu jox ñeneen ki da leen xokkatal pour tiital leen mais lii mu def sax waru ko def parce que juge civil bi

parce que parquet mooy àtte fu mu nekk nii mais le gars moom jéemul xaar parquet xam nga la lay jéem a def fu sama waa kër parce que ay jigéen lañ fexe moom lu tuub pour pour génnee sama ñoo yaay avant juge bee di àtte te juge boobu dana àtte total moom su fekkee moom dëgg la li wax pourquoi muy continuer di li ma gën a metti mooy comme ay jigéen la mais da leen di xoqatal xoqatal moom moo ma metti te le gars wallahi du jaaxal gëm naa ni Sénégal c'est un pays de droit et moo tax ma toogaat fii si tës bi bëgg tës exactement ñëpp partagel ma lii ba ministre de la justice jot ko ba le procureur de la république du Sénégal jot lii parce que lii dafa bëri Sénégal parce que li ñu ma expliqué dañ na am na benn waa xam ne dañu ko defal benn promesse de vente le gars mooy def le tout pour faire le tout pour dégager ñu si kër gi parce que gis naa ko fi yàggul def nañ si benn kon moom ay euh, euh, ah, avocat bi mu jël gaayeen boobu ngay wax d'après kooku moo koy financé. non dañ ne dafa am ku ma wax koo xam ne daf ma am lu ma expliqué dafa ne ma fais très attention parce que j'ai attendu que y a un gars boo xam ne mi ngi derrière le dossier parce que le gars. daf ko dafa ne su paree si lii daf koy jaay kër gi kooku moo nekk si ginnaaw dossier yi mooy fay avocat yi mooy def tout dafa am ku ma expliquer loolu wax ma ko moo tax ma jàllale spécifique pour ñu xam ne carrément ñun on est au courant de tout kër goo xam ne da nga fekk kër héritage ay njaboot yoo xam ne ba ñuy ndaw ba léegi ñu ngi këtti këtti sama yaay dafa liggéey ba dee gis nga sama mag bu jigéen boobu bu dund la ba toll ni mu toll ba waa di koy takk wallahi yaayam moo ko yoroon yaayam moo doon jaay marché xëy liggéey ba génnee dix mille franc joxe ko dépense ci kër gi ba nu muy sëyee dem sëy dossier yëpp moom moo ko yor parce que sama yaay dafa am confiance moom jiital ko ba mu taxawoon mais nekkate waa ji préparation am lenn la woon sama yaay su dee woon këyitu kër lay génne teg ko stable seen yaay moom a jaay kër gi te soo xoolee axe de banque bi xam ci bind une somme de treize man mënuma comprendre léegi nag dafa am loo xam wàllu justice la bugguma see xuus parce que comme li may wax rek am na loo xam ne su nekkee si yoon da ngay bàyyi yoon def liggéeyam te comme li may wax saa su ne sama premier kàddu mooy sama deuxième kàddu sama premier TikTok loolu laa waxoon j'ai confiance sama justice bi ma bëgg uniquement wallahi gës jàllaleel ma lii ba ñu xam exactement parce que woo su dee wàllu sëriñ woo naa sëriñam léegi léegi grand yi lay tiit mooy maanaam euh, maanaam affaire bi justice yéex a joxe verdict bi waa ji def pression ci beneen ci beneen fànn ñu génne sa yaay ak sa sa sa mag yeeg sa rakk yi ci kër gi parce que instant yi fu soo déggee ma koy jàllale te dama bëgg justice def dossier bi ñu xool ko teg ko si table wallaay su ko tegee si waaj day daanu man daf ma wóor day daanu mais moom instant yi kut ko kut li ma bëgg mooy génnee sama ñoo yaay parce que actuellement sama yaay dañ ko convoqué à la police dañ ko plainte moom moo ko plainte ak sama jàpp sa image toi sama mag bu jigéen ku ma bokkal ndey ak moom nan la mun a toogee këram di plainte yaayam bu mu jur yaayam di xam ne moo la jur wallaahi sëñ bi ku toog parcelle ak sëñ laaj kuy sama yaay wallaay da naan gàcce ngaalaama sama papa 92 la gaañu sëyulu beneen góor dafa toog wala gis nga da daan yeewu 5 heures du matin pour njabootam da daan yeewu di dem marché gël sàmp da daan yeewu di jaay syndicat uniquement pour ay njabootam màgg mais tey ji su ñëwee ba njabootam màgg xool ni am nañ benn beau frère boo xam ne dañoo jàppoon ne dafa def lu baax bëgg a seede ñu si ma xool de vente ma ne ko non sëñ bi ko yor bu la signé si nekk le gars a profité est-ce que mënuñu lii waaw ah. euh, euh, léegi euh, sa kàddu gu mujj lan la sama kàddu gu mujj parce que sama waa kër dañ ma woon ne ne dañ leen dañ leen déposé dañ leen convoqué à la police parce que pour wàllu génne leen ci kër gi moo tax ma ne xaaral ma dugal wax ci sama beau frère dafa saisir référé bi référé bi si boppam justice bi saisir la police pour la police pexe pour génnee sama waa kër parce plainte fu mu nekk dañ porte plainte pour lundi ñu dem wuy yi moo tax ma bëgg def alerte pour jot lii na dimbali ngir jëm rasulillahi moo xam ministre de justice day xaar exactement ba pénal atte wala civil atte su boobaa xaar kan moom moom dëgg ak ko moom dëgg ko war a génn ko war a génn dong laa si woon parce que actuellement comme fu mu nekk samay samay sœur dañoo jot leen moo tax ma ne xaar ma defaat tës pour ñëpp déglu ko pour justice àtte ñu ak moom. leer na merci beaucoup jërëjëf ngeen baal ma. Mambay. Hmm? ma bi ñuy tës démb. Mamadou Diouf président du mouvement Bawol Debout hmm. dañu ma informé ne boroom këru lii satin woon hmm. génn na prison ah. benn journal de la place moo ko def ah mbay ma ne ko ah man nga loolu xoolaguma ko hmm. bi ma paree maa ci nuyu sama benn yaay ju baax xam na boppam nga wax ci biir journal bi nga lire ni effectivement turam mu ngi ci te effectivement dañ ko génne kaso defal ko contrôle judiciaire moom jëkkëru lii satin moom jëkkëram ba woon parce que dafa forcé mhm. ji nag ci journée bi jokkoo nañ mu ne ma woona fa nga xam ne mooy takk der yi mhm. ñu ne ko ñooñu amuñ ci xibaar mais xibaar buñ ci am amee dañ ko informé. mais ci guddi gi moom Moodu ñuy confirmeel na ma ne ma xibaar bi dëkk la. kon génn na nii quoi. Moodu Diouf ne ma xibaar bi dëgg la. Hmm. ne ki ñu ne woon mooy jëkkëru Lisa génn na prison te coow li mooy ba tey Lisa. génnul moom. kenn xamul fu ne wax naa ko fi démb. suy dund. ñu xam mu feeñ dafa am dafa war a xam yaayam fan la nit di dund ci àddina su dee dafa faatoot dafa war a xam fan lañ làq yaayam. Mhm. yàlla tere ñaanuñu ko nag mu dem yóbbu ko ci sëg normal. def dëjëm dem def dëyam dem di ko ñaanal. Hmm. mais nii xamoo dund na xamoo faatu na. ñaataat. ah non. ñaataat. ñaata at ñu topp ci benn kaa koo xam ne seeyul ñëpp xam nañ ne seeyul. nit kuy seey moom amaguñ ko. déedéet. waaw na ay mbokkam a ngi fii. waaw ku dem bàyyi fi doom. anam nga mu demee ñëpp xam nañ ko cas bi dañ koo traité traité ba ñun ñoo mel ni ay enquêteur ñun cas bi traité nañ ko boor bu ne. mais nag lii sëtin mënul seey. Mm-hmm. kañ sa jàppoon bàyyiwaat nañ ko mu génn. mu génn te lii sa moom génn. lii sa kenn xamul ama kenn fu mu ne. ama soba ba tey kenn xamul ana lii sa tin. kenn xamul yi ñuy wax nii toog nii ñun ñii ñun xamuñu ana lii sa. xamul ana lii sa. yaayu lii sa xamul ana lii sa doomu lii sa bi xamul ana sa seen dëkk ba yépp kenn xamul ana lii sa dañoo regroupé wu fenn bawol dëggu ñoom ñëpp dëkkub lëmm Sénégal gi yépp di wër benn nit te mënuñu ko gis Sénégal gépp loolu yem parfois da ngay dugg ci yenn groupe Facebook sax di gis mu dugal photoom du ko wër ah, mais réew mi nag léegi nag ñun nag ñun nag réew mi waa Sénégal tamit nag amuñu droit laajte analyse tin waa te te yu ko gën a compliqué nag rek la nañ ko fi vraiment fii Sénégal cas yu ko gën a compliqué rek la nañ ko fi ñu xam ne lii moo xew wala lii lañ def waaye nit ko jékki-jékki rek ne mes bàyyi sa doom yow dem wuy ji génnaatoo Hmm? ah tamit nañ waxante dëgg nag. ah. nañ waxante dëgg Ndiaye merci beaucoup. doy na waar de. fekkee dafa am lu ci rax ñu wax ñu. doy na waar lii satin dey. ah lii satin dafa war a feeñ. dafa war moo xam muy dund. non lii satin wala mu faatu dafa war a feeñ. waaw. ak lu ci mënti am. ak lu ci mënti am dañoo war a wax nit ñi lii sa mi ngi nii. waaw ak lu ci mënti am ndegam baayam bi ko jur. moo gëm yàlla ba ne même sama doom bu faatoo nañ ne ma faatu na mi ngi fii. droit am la sax. waaye lii satin nan ana lii satin na. droit am réew mépp nañu xëy di laaj lii satin. ah na ko de. yéen ñu yor wàllu yoon. jaar na ko de. Marie Fall waxal ma maître Aïssata Tall ministre de la justice bu yees bi. Mm-hmm. na càmbar dossier lii satin def ko yëfu boppam. ndax lii satin yaay la. lii satin doom la mhm. lii satin rakk la lii satin mag la lii satin jigéen la xale bu ndaw doon élève 2020 mhm. ba tey le 14 avril 2020 2020 lañ ko gëj a teg bët ba tey ba 2023 ci ku xëy tàg tàggoo jàngi